aja salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk yi seetaan Ngalam TV ñu ngi leen di nuyu baax kenn ku ci nekk ci turam ak santam tey nag ñu ngi fii ci stade Alassane Djigo ci fan zone bi nga xamante ni moom euh, commune bi euh, euh, ville bi ñoo ko may ak AS Pikine ak 100 pour cent Pikine yi ak ñi nga xamante ni ñoo dëkk Pikine yëpp ci final bi nga xamante ni Sénégal mi ko am fële ci Cameroun tey gis nga football nañ première mi-temps 0 à 0 waaye ci biir match bi ñuy gis Sadio Mané bi nga xamante ni mooy. numéro 10 bu équipe bi raté raté li nga xamante ni mooy mooy euh, penalty bu njëkk bi Sénégal am waaye nag loolu lépp teewul gars yi ñi nga am courage football nañ 45 minutes yu njëkk yi mais euh, ndam dikkul ndam demulam dikkul euh, ba léegi 0-0 la xam naa dañuy ñëw laaj ñi nga xamante ni ñooy les douzième gaynde ñëw laaj leen li nga xamante ne nii noonu lañ gisee première 45 minutes yi incha allah rabbi aja monsieur le maire ñu ngi lay nuyu baax jërëjëf maa ngi leen di fay Garam TV mi ngi lay nuyu 45 minutes lañ fubal bit amul ñu fubalaat 45 minutes 90 minutes bit amul ban jàngat nga am waaw mais dara fubal noonu la du rek 90 euh, minutes dañu war a dem 120 minutes li am nag mooy ñuy ñaan yàlla yàlla defal ñu ndam ba tey ñu ngi ci yoon te gëm nañu ne incha allahu rabbi ak équipe bi ñu yor nii ak li ñuy gisagum ci 90 minutes yi mérité nañu gagné coupe bi en tout cas man loolu mooy sama sentiment ci li ma gisagum nii Égypte bi, ci match bii ñoo ko dominé. kon waa dix minutes yi njëkk yi Sadio Mané raté raté penalty. waaw mais loolu day am football moom. waaw penalty ku koy tiré moo koy raté donc euh, je pense que mun nañu bañ a focaliser wu ci loolu mais li ma gëm man mooy équipe bi en tout cas ni ñu ko gisee nii moom moo mën Égypte tey war nañoo mérité gagné match bi. te ñu ngi ñaan yàlla yàlla defal ñu loolu parce que vraiment ñun ñoo mérité bu ñu ko yàlla defalee ñu delloo sukk bi ñun ñëpp ñu feete ko incha loolu la ñuy ñaan. jeune bu Pikine nga xam ne ñëw nañu en masse si daan si marché bi. waaw mais jeune bu <coughs> ñu ciy am mbégte parce que lii fête la final la final fête la xale yi ñëw nañu feetu te ñu ngi ñaan yàlla fête bi gën a yokku na fii ba fajar parce que bu ñu jëlee coupe bi incha allah fête bi day gën a jëm kanam yàlla nañu yàlla defal loolu. am ñetti joueurs dëkk Pikine muy euh, Nampalys Mendy. pap Cissé ak Bamba jé mi nga xamni fi la juddo dem jaarém wa mais am ci mbégte trop trop trop trop trop vraiment doomu pigin mom dara jombolen leen c'est pas la première fois aussi ñuy am doomu pigin bu nek équipe nationale. waaye bu ñuy amee équipe nationale bi ay xalé yu ndaw yo xam am nañu encore carrière sen kanam ñu bokk ci équipe nationale du Sénégal vraiment dañ ci am mbégte Nampalis dans les war na mën a wala weer ak bukifan euh, ak juroom benn xaritu papaam benn bakkan di sama xarit ñu koy wax François Correa gën ko xam ci Bégay Ndiago ñëw na kër ga jógee France ñuy waxtaan lu yàgg bay wax waxu Nampalis kon loolu fierté la waxuma Pape Saliou waxuma ñi nga xamante ne ñu ngi fi encore Bamba ñooñu ñëpp ay doomu Pikine lañu mais am nañu mbégte gis ay doomu Pikine bokk ci équipe nationale du Sénégal te nag c'est pas la te dina jëm ci kanam yeneen doomu Pikine te dañuy lii ñuy wax ci Sadio Mané doon ko wax ci Jules François Bocandé doon ko wax ci ñeneen ak ñu toog ba nga xam doomu Pékin moom la ñuy ci Sénégal te ñaan dinañ ko am allah. vous fin du match. waaw mais tranquille dañuy dem ci fin du match bi léegi mais dañuy jël coupe bi bu soobee yàlla loolu. ñu bëgg ñun ñëpp ñu yuuxu sax mooy dama fekk fekk may di daw dem waaw mais yàlla defal amul ñu fubal 45 minutes amuñu bit ñu kat football 90 minutes amuñu bit lan jàngat nga ci non football noonu la. football noonu la Sénégal ñëpp xam nañ ni moom moom match bi te ci prolongation yi Sénégal dina dugal dinañ gagné match bi bu neexee yàlla am nañ ci yaakaar bu dëgër de. 10 minutes Sadio Mané raté raté li nga xamante mooy penalty. waaw mais xam na Maradona ñoom ñëpp raté nañ ay penalty penalty yoo xam ne ni ci match bu capital lay doon.

loo xam ne mosu fee dugg day jar ñëpp ku nekk def ci sa ngi ngir yàlla may ñu dem ci barke Seydina Mohamed waaw waaw waaw ñu ñaan yàlla yàlla nañu yàlla may ndam naar yàlla nañu yàlla may ndam yàlla nañu yàlla yàlla nañu yàlla may ndam mais bu doon mel tey da nga naar stressé wuñ ndànk sax tolli kay barki Sëriñ Bamba damaa jom kenn mës a gis lii mais fubal la nag mais booy li ñuy fubal te mënuñoo dugal mais y a quelque a ah, da nga jàpp ni dara la. ah mais li booy football kenn mës a gis lii kon lan kenn xamul man xaw ma de. <laughs> mais rek da war a xam nag final la boo final bokkut te mënut a yomb nag. noo mënut a yomb moom vraiment booy moom ay jàmbaar lañ moom joxe nañ lépp ah. wax dëgg yàlla yàlla na yàlla may ndam rek mais jeexagul des na 15 yàlla mën nañoo suturaal quoi. da nga jàppoon ni dem ay séeréer yooyu. ah man moom bëgguma séeréer de balaa boobu yàlla nañ gagné yàlla série mom yalla ñu dugal. kon daal ñi ngi dese espoir. wa wa nañ xaar rek yalla baax na. yalla baax na. on a manqué un penalty qu'on ne devait pas manquer mais nak c'est ça le foot quoi mais j'espère que euh, ça va venir quoi ça va venir. am le courage de balaa match bee jeex ñu dugal. inchallah ça va venir cette fois-ci on ne restera rien on est pris on a pris tout nos gars on dama gis si kanam ñu xawa a mel lu xawa xawa xawa stressé yoy ba yaangi nek nit nan café. non il y a pas stress.

comprendre nga lii penalty la da ngay dal nga teg bal mu dugg parce que lii final la deuxième mi bu ñëwee Égypte bu la dugalee doo ko dugal da ngay sonal sa bopp rek final la ça ne se joue pas ça ça gagne yàlla ñu yàlla may ndam nag loolu am solo quoi mais match bu jotee yenn occasion yi dañ koy dugal mu dugg quoi vraiment parce que soxla nañ coupe instant bi nii nos joueurs yi concentré wu deuxième mi-temps lu ñu mun lépp jusqu'au fond yàlla yàlla neex na ñu ñaan yàlla may ñu ndam nag. waaw 45 minutes yu njëkk yi lan ngeen jox noonu. 45 tiit nañ tiit nañ trop moom franchement parler mais yàlla baax na dinañ am ndam coupe bi fii lay ñëw waaw waaw. daan nañ ci yow. ayca ayca ayca ayca. mel ne que stressé non ah, loolu ngay nuru. non loolu laay nuru mais ndam rek eh. waaw. kon daal Sadio Mané waroon na dugal euh, bit bi nga xam ne moom la. leneen a ngi ñëw leneen a ngi leen di may courage rek mais dañ leen di gagné hmm. incha allah. kon mi ngi noonu defe naa ne Sénégal sama waa ji maa ngi lay ziar. delloo ziar bu. cinq minutes yi ne Sénégal def na ko. waaw de loolu ñëpp gis nañ ko mais final. kenn du ko joué dañ koy gagné Sadio raté na ko mais esprit am baax na nañ gën a jàpp gën a gérer day ñëw ñun gëm nañ loolu te joueur gëm nañ ko day ñëw du changé premier mi-temps bi def nañ masu baax égyptiens yi gis nga leen dañuy sànni rek il balance les ballons léegi nañ fexe Salah ñu koy mën a jege parce que il est très c'est un joueur daal voilà donc nañ koy gën jege xam ne coupe bi ñu gis si 45 minutes yi maanaam ay compétiteur lañ xam nga ku gagné sept nekk record maanu Coupe d'Afrique da xam ne kooku du como mais ñun tamit suñu détermination suñu abnégation ak suñu première étoile fii lay feeñee si moo teer a bare ci biir dañuy gagné tey gagné bi force la voilà ayo sama grand yaa mel ni yow stress wu ah ni stress nekku nekku ci man ah. non non non ah. mais ko en tout cas ndam bi la ñuy xaar rek. mais 45 minutes yi li waral tey Sadio Mané am première li nga xamante ne mooy penalty ba pare joueur bi jàpp ko. waaw mais xam naa pression bi rek la daa yàqam te mais dina dugal incha allahu rabbi Sadio Mané dina dugal loolu ma leer la dina dugal ci kattanu yàlla incha allah 2-0 lay doon waaw 2-0 incha allah 2-0 bu soobee yàlla. jaajëf. waaj xanaa da ngay stressé. ah da ngay stressé xanaa. waaw damay stressé waaw. loo waral lool. non damaa xam ne ndam li dina ñëw rek incha allah ndam li dina ñëw incha allah. xanaa ah, penalty bi moo lay stressé doon. non non non day lii mi moo tax saa dañuy reposé doo toog xaar Sadio ñëw dugalal dina ñëw dina dugg. ndam dina dugg bu kenn découragé. ndam rek incha allah coupe bi fii lay ñëw nan gëm loolu rek. waaw incha allah waaw. jaajëf mi ngi noonu defe naa ne yaa noonu. ana ngeen ana ngeen. boo da ngay seere sew xanaa da ngay seere woo xanaa. Eh, yow da ngay seere sew xanaa. waaw. loo gisee 45 minutes. waaw 45 moom wax dëgg yàlla kontaan nañu si quoi parce que penalty bi daa waroon dugg. penalty bi lu mu dugal moo tax suñu xel instant bii dañoo xaw a tiit quoi suñu xel dalul bu ñu moom Sadio day dugal penalty bi quoi ñu mën a simile quoi parce que ñun namu ko. boobu ba léegi gisuñu ko bu baax dañu ko a gis quoi. bilaay wallaay sonn nañ trop. mais ñu ngi ñaan yàlla deuxième mi-temps bi ñëw neex Sadio Mané dugal wala Ismaïla Sarr quoi bu ko defee ñu mën a sibila yuuxu walaay walaay son nañ trop son nañ trop mbaa. sant dina ñëw waaw waaw dina ñëw yàlla baax na. yàgg na jaajëf bi nga doon. mais gars yi lu ngeen wax. lu ngeen wax yéen. waaye kontaan rek kontaan rek mais ñi ngi xaar victoire bi incha allah. mais loo gis si 45 minutes ak penalty bi nga xam ne Sadio Mané

ndam rek laa si gis équipe bi jaay yëpp ñu ngi seen ginnaaw barke Serigne Touba seetaan nañu leen benn yoon kontaan nañu si premier kii bi ñu def. mais est ce que waru waroon dugal bit bi libéré Sénégal yi. non moom daa waroon dugal bit bi gars yi nekk seen mais instant yi ñu ngi toog si nen gars si nen la kii Sadio Mané daa waroon yeewi gars yi rek gars yi mën a yàlla baax na yàlla yàlla def ndam deuxième deuxième ndax Sénégal dafa jot mu ci 45 minutes. ah di xaar deuxième mi-temps bi rek di ñaan yàlla may ñu si ndam incha allah. Ah. waaw dëgg la Sadio a fu dugal bir bi. si si si mais lu yàlla tudd rek mënuñu si dara mais di di di kii nii am nañ espoir daal te dañuy jël coupe bi incha ko Sénégal incha allah. am ngeen am ngeen kii. bu baax a baax am si yaakaar nag waaw bu baax di eh. bu baax. Ah. waaw leer. li nga xamante ne mooy premier bi. ah ça dafa waru dugg rek bu jotee rek day ñëw. Ah, ni gëm yàlla laa gis nag mais nag ça va venir comme ni nga ko waxee incha allahu rabi euh, de 45 euh, mille yi nga xam ne moo yàlla mën naa def ñu dugal li nga xamante ni mooy but bi Sénégal am ndam ñu ñëw daal di euh, li nga xamante ni mooy coupe kon ci kanam tuuti ah ci deuxième mi-temps incha allah yàlla na fekk nag ñu ñu dugal but incha allahu rabi 2 buts à 0 ci kaw ci kanam. yaa jël ndam li waaw c'est la première fois on souhaite on souhaite coupe bi yàlla na ñu yaa ngi dégg ndax c'est la première fois ñu jël bi yàlla na ñu tamit yàlla nañ ko gaaw a jël ay dawel Sunur kontaan kontaan barki alcorane karim li rek lañu déssalon ñaari yon final positif ñun rek ñoko fi mësa dem ci Afrique ñun rek ñoo mësa tegle ñaari yon coupe ñak benn bi dem jëli benen bi échange yi dañu bëkk ñu ñu fekkeel won 2002 ak ñu doon dogo judd ak échange ñepp ci bokk ci fête bi nak kontaan ci ñom amul kenn amul 28 jours lañ convoqué amul kenn kuñ kontaanu ci ñom nak premier match bi bo xolé suñu 23 jours yi ñuy convoqué sax da manqué nak bo xolé bu ñëwul won 20 bu yóbbul woon 28 jours du demee nii mais essai daal dama kontaan ci Lions yi commencé ko ci fédération bi laa commencé nag ba ci Aliou ba ci capitaine nu Koulibaly Koulibaly waaw mooy loolu daal essai dama bëgg barki alxuraani karim essai amul nelaw essai am la la tey amul nelaw feet la ku mën a naan sangara na dem naani sangara ku lu waay mën a def na ko def essai Sénégal Sénégal. xol sedd na suñu xel dal na nañ bu baax a baax a baax li doon wut yàlla may nañ ko ci xol bu sedd guyu yàlla na ci yàlla dolli ndam defal nu xéewal ci barke Seydina Mouhamed. mais biir match bi métti woon na defe naa ni stressé na Sénégalais yi. non macha allah métti na trop mais nag yàlla defar na lépp wax dëgg yàlla bég nañ bég nañ kontaan nañ fii Pikine Ridis moo nekk nii amul tey daal Sénégal ki gañ daal kontaan nañ wax dëgg yàlla. mais Nampalys Gomis Mendy bokk fii la dëkk Pikine non xam nga fii ne nii bul wax kenn ñun ñëpp senegal ki gañ dëgg la ki gañ amul Pikine amul Guédiawaye tudd léegi Pikine moo tax ñëpp Pikine ñëpp Sénégal Sénégal ki gañ bëgguma kenn tudd kenn nañ ñëpp Sénégal ki gañ kontaan nañ barke Mouhamed mais xam nga Sénégal li muy ñun Pikine lañ ci am te am nañ ñetti joueurs yoo xamante ni ñu ngi dëkk Pikine muy muy Pape Cissé non loolu dëgg la muy muy muy mais boo defee waaw xam nga loolu dëgg la Bamba Dieng ñoo ñëpp dëgg la mais man bëgguma xàjjale bi daal Sénégal ki gañ Sénégal ki gañ nan ñaan yàlla ñu indil lu kontaan nañ daal kontaan nañ macha allah. mais changement bi mu ratee penalty bi noo def. non boobu moom damaa dee moom.